ñaari fukk ak juróom benn tonne marchandise bi baaxul bi nga xamante ni waa service d'hygiène teg na ko loxo lu yàggul dara tey na xel consommateur yi bàyyee ko foofee ca plateau. waaw produit yi moom lu si ëpp étranger yaa ko fi indi. na moom bëri na Sénégal loolu dafa bëri Sénégal étranger ñoo ko fi indi. ndax boo xoolee Sénégal fii bitig dëkk bi yëpp étranger yaa ko yor. lu nit di jëfandikoo. daa war a nekk lu leer. lool lañu gis. dafa war a set wecc. biir moom lépp lu si dugg daa war a set wecc étranger yenn saa nga jànd seen lekk yoo xam ne yenn saa yi nga dem si bitik jënd mburu daf si nen wala leneen nen bi day indi beneen odeur boo xamante ne mooy loolu yaa ngi dégg ginaar sax man jënd naa ko ndékkee dama ko mujj sànni quoi. ci loolu ñu ci ñaax autorité yi ñu gën ci bàyyi xel. waaw du ñëpp a bokk yam nag am na ñoo xam ne moom mooy loolu saa boo leen jaayee dañuy xool am na ñoo xam ni moom comme sama rek mooy loolu yaa am gën a xam pour ñu liir moom mooy problème état kay lu mu war a njëkk a jóg mooy gars yi fay seen àq ak seen yàlla si réew mi étranger mënoo nekk si dëkk jàmbur ñu jox la lépp ngay lekk di naan daf lu la neex. di xamle ni rek di ñëpp mën a saytu li nga xamante ni di qualité marchandise yi ngir mucc ci yenn yi ci loolu ñoo ngi ñaax autorité yi ñu gën a tarala li nga xamante ni mooy saytu bi.